mbokk leen nuyu di am mbégte nag di jàkkaarloo ak yéen mbokk yi ndax li nga xamante ni moom moo nu yàgg boole tey moom moo nu boolewaat li nga xamante ni moom mooy bégal Sénégal à chaque fois Sénégal am ci fu mu toll wala am nu mu mel gars yi ne il foog que làmb di am ngir réew mi mën a neex il foog que di am ngir réew mi mën a dox tey nag ñu jóge ci weer woo xamante ni mbokk yi weer wu màgg la weer wu sell la ñu ñaan lépp loo xamante ni nii ñaan nañ ko ci biir weer wi yàlla na ko suñu borom def ay xéwal tuur ko ci askanu Sénégal ci barke Seydina Mohamed yàlla sunu borom dooleel ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci Sénégal muy la jeunesse sénégalaise comme ni ñu koy waxee saa su nekk ci sunu ay kàddu rek yal yàlla sunu borom kàttanal leen yal yàlla sunu borom dooleel leen yal yàlla sunu borom may leen ndam ci lépp loo xamante ni ni nekk ngeen ci ndax ay xale ngeen yu am jom yu am fulla koo ci gis kii mi ngi jéem a yenu caméra kii mi ngi jéem a yenu micro kii mi ngi jéem a ñëw ci géej gi xëcc gaal. xëcc mbaal kii mi ngi jéem a def leneen ak leneen lépp ngir bëgg yóbbu ko seen kër kon ma bëgg ndaw ñi fi nekk ngeen tàccu seen bopp yéen la jeunesse sénégalaise ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi ñu teew fii ci Faro bis ci li ko waral Thiam production moom moo ñu fi indi Thiam production doon ay ndaw yoo xamante ni nii ñi ngi ci Soumbédioune ñi ngi Gueule Tapée ñi ngi Médina ñi ngi Ndakaaru ñi ngi fépp foo xamante ne nii ndaw a ngi fi di liggéey ci lu ci luy doxal réewam rek Thiam ndaw ñooñu lañ dajale mbokk yi bu ñu waxee Thiam suñu xel dina dem ci Modou Faye ah suñu xel dina dem ci ki nga xamante ne nii mooy Amdi Moustapha sunu xel dina dem ci Aba sunu xel dina dem ci Baba Diaw mi nga xamante ne nii moom mooy moom mooy promoteur bi waaye suñu xel dina dem ci staff bi nga xamante ne ni ñoom ñëpp ñu ngi ci Thiam production ñu leen di siyaare mbokk yi ñu indi ñu kombaa boo xamante ne nii àdduna ñëpp ko doon xaar àdduna ñëpp bëgg combat boobu. muy diggante soq ak ki nga xamante ne ni mooy gàmmu gi tey boo leen xoolee li nga xamante noonu la saal bi mel ngeen xam ne combat boo xamante ne Sénégal ñëpp bëgg nañu ko combat la boo xamante ne amateurs yi bëgg nañu ko ndax presse bi ñëw nañu wuy si leen te boo leen xoolee nii nga xamante ne noonu la presse bi ñëwee muy ñëw boo xamante ne ñëw bu am solo la ñëw bu am doole la ndax ñoom fii ci réew mi lépp lu fi siiw ñoom ñoo ko siwal lépp lu fi génn ci lu baax ñoom ñu ñoo ko génne ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax la presse sénégalaise yal yàlla suñu borom defal leen jàmm yi ñu nekk nag ci bi ak sunu ay kilifa nekk ci salle bi ak sunu ay papa ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax bu nu ko waxee sunu xel dem na sunu père Thiam bu CNG bi nga xamante ne moom saa su nekk bu yu mel ni amee moom day ñëw taxawu taxawu xale yi waaye tamit taxawal CNG moom sunu papa mi nga xamante ne ni mooy sunu père Thioum ñu leen di béggee bu baax a baax a baax waaye tamit sunu mag dafa nekk ci saal bi muy Alioune mbay bu Walfadjri di liggéey liggéey bu am solo ci li nga xamante ne mooy làmb di liggéey liggéey bu am solo ci caada ñu koy jaajëfal bu baax a baax ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax Alioune Mbaye ci liggéeyam bu am solo bi nga xam mi ngi koy def ci Sénégal ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare waaye di nuyu tamit suñu père suñu papa booy Kayré bu ñu nee Sumba Jun xel yëpp dafay dem ci booy Kayré ndax liggéey bu am solo bi nga xamante ne ni def na ko fi tey bu xale yi demee ba am fitu dugg ci làmb pour tëgg ko c'est parce que moom moo bëre ba wan xale yi yoon bi nga xamante ne ci la ñuy jaar ñu lay siyaare bu baax a baax ak ñi nga àndal ñëpp di lañ bëggee. ñu la ñaanal suñu borom defal leen jàmm waaye tamit di nuyu Jibi Ndiaye mi nga xamante ni promoteur la nekk ci association des promoteurs authentiques maa ngi lay siyaare bu baax a baax di nuyu Matar Ndiaye la manager di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax xamante ne nii mooy liggéey bi waaye balaa ñoo dugg ñu accueillir kenn yóbbu ko tëggal ko mu ñëw tëggal ko mu baaxu directement Paul bu daaru la ñëwal pusal pusal ñëwal mbar ñëwal waaw waaw waaw waaw waaw waaw cey bi combat waaw pataas tàccu loolu waaw waaw kontaan nañ ci moom kaay toog fii kaay kaay kaay booy kaay fii ma sa place kaay fii la fii fii sa dugg si am na solo doomu ndakaaru bi yegsi na jën bañu kere waaw na keneen ñëw na wuy loolu am waaw waaw laay lay la laa jaajëf merci kay doo kay ndoo gaawal ndoo gaawal jaa ngeen ñoo war a bëre waaye xale bi bi mu jugee faadal dama gis ci xale bi loo xamante ni dama ko gis ci ay ndaanaan yoo xamante ni dañoo jékki-jékki rek ñëw jaaxal làmb ji muy lu muy loo xamante ne lu am solo la Ndo Afia sa adversaire ñëwul duñ fi wax dara di ko joow luñ fi wax rek dañ koy joow dangay ngay jàkkaarloog télé bi nga wax ak gaay Mamor yow ak Paul bu daaru s'il vous ya ñaar Mamor yow ak Paul bu daaru rek la leen lii la le 6 ngeen jëflante ko que le maire gagne ku man sama morom duma du fii wala boog aja ndoo afia loo wax bàyyi ma tey jërëjëf borom Touba jërëjëf Seex Amadou Bamba Xaadim Rasul di ñuy mboolem doomu aadama fi teew di la aw seen fay boo gisee dara rek dara moo tax. Eh, jàkkaarloo la kamet. du ma ko wax dara ndax ñëwul ndax loo wax si ginnaawam jëw la du ma jëw kenn ruxu balaa dëkk yi 23. Père Kayra moo ñu yar jàngal ñu bëre ñu nekk écrit suma jun nekk ay xale ndaw jàng fa bëre ba tey am na mu demee waaye ba léegi ñu ngi fa suñu fa jug ay jéen jàngal ñu bëre Serigne Ndiaye ñu du ñu doon cuune bu bis fu mu nekk dinaa ko fa fekk te damu jeex daw mu law dee suli la te ko aya nee na ko baaba ko te ko mariama basa wata walay allo boni saay-saay fu mu nekk dinaa ko fa fekk dinaa ko fete fete yu metti déggoo ma de xale bu ndaw déedéet waaye yow yaa ma mën a jàppale rek boo defee nii rek signature bi day guddee waaw la mais waroo def la maa ñoom mbapat ma ñii samay deret lan rek leel la waaw xale bu ndaw boo xoolee nga xam ne liggéey nañ du ñu triché te bis baa yàlla bu taxawee dina day gaaw walla lu mu laaj xale lañ déggoo lu mu fu mu nekk dinaa ko fekk dinaa ko tuuma daan ko déggoo ma xanaa amul lu ñuy xaar dañu mel ni yàkkamti di ñaanal mbañik ndam amuñu lu dul Medina Medina ñu dëkk waxuma ko ndax ñaanal sawaay safaan dam ko wax ndax maamoo ñoo bokk deret ñoo bokk lu ñuy lu def ànd yàlla ko yàlla may ndam may ñu ndam ñu ñëw 23. wooteel wooteel. di woo ñëpp eh damay woote. da sa trop. non sant sant nii la demee amul benn tuun. top maa nice nice nii rek. ma bàyyi la nga nuyoo ban écurie nga nekk. man maa ngi saa njàmbur. saa njàmbur ci ñoom dongolo. ñoom dongolo waaw. aca nuyool. waaw onze billah bismillah inna waliyallah jërëjëf Serigne Touba dinaa ma sant yàlla julli ci yonent bi sa sama ñaari waajur di sant waa Réfane bu baax sama dëkk di sant waa Réfane bu baax a baax di ko dalal Réfane réew njaan sama waa dëkk ngangu nay maa leen di siyaar bu baax sama dëgg njar na di siyaar sama mafia bi waa réew mbooloo xale yi déggoo waa groupe Ré ba tas maa leen di bëggee nuyoo waa du nuyu waa Kër Massar du nuyu waa axlu làmb di woo ñëpp daal du nuyu sama grand ma àndal Abdou Seck Petit Mor di woo sama kosi mbaytin kii grand jazz Abdou Seck tout di woo waa Kër Massar nag Tivaouane Peulh tout maa leen di woo sama dëkk Daara Jolof Thiamène lépp maa leen di woo si combat bi ñëw xanaa xamoo leen fi ñu taxaw nii bu courant coupé woon gargam na leer kon xam ngeen li may wax saawaay ñëw na de noo ko gisee ak looy wax si. waaye nuyu sama koosu américain. waaw américain nuyu nañ la. wa loo wax si kii. li ma koy wax suur baa li ma koy ñaan taxaw dëggal boppam. bilaay kii taxu maa jóg de. kii li muy wax gëmu ci dara. billaahi gëmu ci dara. kii yàlla xam na ko daa am lu ñuy xaar am ñu ñuy xaar. wax la am lu ñuy xaar am ñu ñuy xaar. père. waaw boo ma ko waxaatee. billaahi doo waxaat. waa Réfane dañ maa yónni yaakamti ma barki borom daaru kii taxumaa jóg laam booleenu kii boppam lay nax rek kii pareegul sax kii bu jour ba mooy kan booy bi liggéey na de lii du dara copine ñaay la ëpp mu toll pour <laughs> bay déggoo ma la top 5 borom sigi jàpp daan borom yëngal gësam borom 22 koy mu jeetee gën a si borom ñaari dëkk yaa ngi je suis l'homme qui n'a jamais peur je suis Garga Mbeddon ma lu may ragal du nuy waa Kër Massar yëpp bi ma jógee xam nañ bu baax xam nañ kii je suis kii dooy wax sax billaay kii bu laa ma wax baaxul sax di nuyu sama waa Grand Médine ba ma jugoo waa yenn xeex simaani kii waaye lu raw xeex laa koy def naa ko teg lu metti kii li muy wax gëmu ci dara di nga xeexal ci dara di nga xeexal bu paree taxaw dëggal boppam ma dóor ko dóori metti grand bàyyil di jaar ci kanamu caméra yow tamit boo bëggee nga teg sa réer kaa ma teg sama réer kaa barki borom daaru combat nu xeex ko am dara du la may cent francs man dañ maa yónni yaakamte ma waaw waaw waaw waaw yow yaay kan amul ragal Africa Africa Africa Pub. Africa Pub. maa siyaar. wér. maa ngi yow ñaata at nga am. père man. Oh, eh, waa dem. ñaata li laa juddoo. Urutan Urutan sa papa. xale bu ndaw laa yow xam nga loolu. waaw dëgg la sa père sa papa mag la c'est vrai. père di nuyu ñu nekk si saal bi yëpp di jégalu bu nekkee def naa fi loo xam ni waruma kaa defoo fi dara. waaw di siyaar ñu fi nekk ñëpp di nuyu sama grand yi toog sook ak Gamou Gueye di leen siyaar yi ñëpp di nuyu sama papa Youssou dafa jàpp ci combat bi Youssou dafa jàpp si combat bi sama booyee dañuy sonn xool leen billaahi barke Serigne Touba booyee dañuy sonn di woo. mais booy bu ñu sonnee xam nga lu leen di fay. incha allah ba le allah ndam rek incha allah ci biir rang bi eh. père ñaata li laa juddoo ñaata li laa juddoo màggee Grand ci lan bi nga ne ci lan bi ci pii par rang bi pii par rang allah le ci pii par rang bi ca pii par rang bala comme lu ñu mës a dallu père di la xamal di nuyu sama père Ousmane jàpp na si làmb ji père Yacine mais saa waay na bu la jàppee lu métti la lay def non saa waay xam nga nekk ni fii di wax di wax dara di wax dara loo xam ni taxaw fi su fi taxawoon lay gën a neex per voilà ñu wax lu ñuy jëflanteel siis comme que nekk bi amul lu ma koy wax di nga lu wér fu mu mën nekk ba la siis na aka dem jëli bis bu ñu demee ci làmb ba Ama Baldé war a dajeeg Diène Kairé laa ilaha illallah pël bu rafet Ama Baldé war a dajeeg Diène Kairé ñu war a dem signature contrat duma ko animé de saay ñëwul ñëwul nag amut embouteillage bi moo xat Pikine instant yi pont bi pont bi pont Pikine bi kenn mënul génn dafa xat faalewu la dawul aja maa lay nuyu gannaaw ma sant gannaaw yàlla di sant samay ñaari waajur di sant waa Medina yëpp Medina Fass Gueule Tapée Colobane waa Cité Marine waa Derklé Cité Asecna Xaar Yàlla Grand Yoff ñëpp waaw di sant waa Kër Ndiaye la waa Tëngéej waa Jokkul di sant ñëpp waaw waaw Jacob Baldé yéen ñaar teelu leen bëree sax loolu laa lay laaj non Jacob moom moo laaj sama avance quoi waaw waakaaroon si lam mais moom moo moo bëgg bëri man te dëggalul boppam bi mooy deux fois du ñëw signature bi ma loolu laa bëgg xam na quoi ñaari signature fan la benn bi fii la mais benn Pikine la Pikine moom dama naa mais fii saa ñu ko invité fii du ñëw quoi mais garaawul bàyyi ñu dem foofu ñu ragaluñ loolu mais moom it muy xale boo xamante ne nii yéen ñaar da ngeen a xaw a am loo leen bokk yéen ñaar ñëpp wax naa ko léegi da ngeen a juddu fekk ngemb li ci kër gi mën naa ni li nekk ci yow am na ci lu ne ci moom xale bu mel noonu préparé ko. waaw mais loolu am na solo mais làmb liggéey laa gëm quoi entraînement laa gëm gëm sa bopp loolu ay détails la la mais ñun nañ suñu bopp rek dëggal suñu bopp loolu la boo xamante ne bu am fit. ah fii fit fii la fekk baax mën naa rek yow tamit man fit waaw. Ah. Ah, waaw deuxième xale la boo xamante ni ci biir bëreem bu jàppee balaa gars yi s'il vous ñu déglu wax leen déglu. Ah, waaw xale la boo xamante ne ci biir bëreem bu jàppee balaa bàyyi kii muy bëreel daa yegg ci suuf. non maa ñoom bokkul de man bu jàppee du def dara barki Serigne Bamba waaw bu jàppee moom du def dara jàpp ñàkk jàpp ma jàppee ma daan ko man ko jàppee daan ko. bu la ma jàppee ma daan ko man ko jàppee daan ko incha allah. muy xale boo xamante ne tamit xale bu ñemee xeex. mais Jacob lu muy def fii la bu wujjoo quoi sans jaaxaan nag. voilà lu mu indi rek fii la buuju incha allah su kàttanu yàlla le 6 sama le 6 la moom xam na loolu baax a baax ñun daawuñu loolu. damay gis si yow booy wax dangay wax ak kóolute da ngay wax ak certitude. non man li laa mel nag da naturel nag man nii laa mel nag wax dëgg yàlla yàlla ni ma bindee quoi. dina gaaw. ah combat bi sans dépense moom rek oo dëgg yàlla bu ñu ñëwee bu dëggalee boppam bu gaaw bu yéexee mooy loolu quoi. fii rek la moo moo moo waa aca kaaw moo ñu xool ñu jàkkaarloog télé bi parce que yéen ay mbër yu mag ngeen ñu jàkkaarloo gaa yi xàmme leen moo gis nga kaaw ah gis nga ah naa ko gis nga moo gis naa ko kii alxuraan si combat ma day deux minutes moo yàlla bàyyi bëri prix dib laa lay def maa la man maa la ëpp doole man xale bu ndaw laa ittee ak ñoom Général Mbalika du temps du taxaw yow barke alxuraan. waaw salaamaaleykum ginnaaw yàlla jul si sant sama ñaari waajur maa ngi sant ñu fi teew ñëpp di sant sama boy mandal quoi ñoom Aliou Ngaga xam nga ñoom Mambay ñoom sama boy mandal yëpp di sant di woo xam nga waa Bawol gi yëpp xam nga di sant suñu baba booy Gaye Mole ñoo koy sant bu baax xam nga te suñu doon la wax dañ ko doon yàgg du roy xam nga suñu baba booy Gaye Mole kii nag li muy wax nii ay waxi dox la Modou Mbaye xam nga li ñuy wax boo génnee fi dañ laa bëri dañoo dof yaa ngi dégg wax boobu dafa naqari wax boobu dafa naqari boo ko déggee mais boo ko xalaate xam ne dëgg parce que saar yi ñoo tax ay waxi dof ay man xelal la ay man paa nga nangam naa kii doo xam naa ay paa la waxi moi je suis jeune yow sax bëriwul ma kooku man maa ko man xam na loolu sax moom Modou Mbaye war na alxuraan su ko maa matee deux minutes yàlla bàyyi bëri maa mun fuuf li nga wax foo ko teg mun maa ko bu doon maa xam nga ko moom ki dama xam am naa la prip prip waaw baax a wax la ni ndaanaan la li tëddoo ma ndaanaan bi ak combat bu ma jël deux minutes yow waaw ah, baax Modou Mbaye kii bu fekkee daa bëgg a def comédien na dem si waa mbëru di def comédie barke Serigne Saliou Mbacke li wax mu day gëmu ko barke alxuraan gëmu ko fula lay wax de Modou Mbaye yow xam nga ne kii fu ko maa leen mën conteneur si moom maa leen mën conteneur laa si moom maa leen mën xam naa ko bu baax ragal la day jéem a mën a fit ni mbooloo mee tax mu yokk ab ragal bu mag la da nga xeexal moom bon man sama combat musul yàgg in di nga xeexoon ko kii ba ngay daan ko soo fexee moo toll nga daan billaahi quraanu karim xe waa bu ko wax kii bu taxaw cinq minutes sans son cinq minutes laa ah wàcce wu ma ko abi da yëkkati loxo ale kaan ko si ka taxaw cinq minutes xeex sambal moo sambe moo toll nga cinq minutes xeex une minute Modou Mbaye kii du xeex xam naa li muy bëre xam naa ko baax ab ragal la barki Serigne Bamba ragal ragal la daaf laa dëgg ragal dëggu fa billahi du bëggee waan du waaw woote waale du bëggee waan du lépp du bëggee waan téléphone yëpp Daaru Salaam na ñëpp génn jàppal seen doom moo yaraax maris fépp moo yaraax moo yaraax maris fépp du bëggee waa ara dula mafia bi yëpp et moo man maa la benn affaire bu gars yi jàppale Kaw Cissé doom Kaw Cissé bu mag gars yi dañ ko takkal mu aykoon moo voilà mu aykoon moo xool du agressé gars yi jëm ta kaw naka gars yi jàppale mu génn te wooteel waaw Modou Mbaye maa ngi waa Bawol gépp xam nga maa ngi woo waa Réfal waa réew ma waa Kër Samba Kan tul xam nga na su ma limee damay juum maa ngi woo waa Rëbës sama sama fa may yeewoo esaay maa ngi woo waa Rëbës gépp di wax ñëpp di woo ñëpp ñu may jàppale di woo ñëpp ñu may jàppale di wax ne combat bi sama bëgg laa sigar barke alxuraan moo la xee doo gëm maa mën fu kom aja ñu dem yóbbu leen yóbbu leen woote nañ ba pare muy Paul bu daaru ak ki nga xamante ni moom mooy Mamor ñu dem waaw Thiam bul noté de Père Thiam bu leen si bu leen bind loolu bu leen bind loolu bu leen bind loolu bu leen bind eh, eh, eh, yéen ñaar boo yéen boo leen amee yéen ñaar ñëpp ku ci nekk boo ñemee sa bopp sa morom kaa leen fii ay tapet ñeen booy waaye booy da ngeen di kaa fii waaye yéen kaa fii ngeen ba wax foofu sëñ bi taxaw kanamu caméra yi nii di nellu rek Paul dama ko xiif namm ko barki Serigne ma dama ko namm kii dama ko jox cër bu baax mbër la moom ëpp ay victoire moom ëpp ay combat mais man sama combat nii lay demee man du ma seral ay metti ma naree seral damay tëdd sama gaale du mu teew Paul yow mu demee ni Mamor lamb la rek adversaire la comme baaxoo am lu mu laaj waaw ay xale lañ a yomb du yomb signature du man maa la wax xam nga ko xam naa ko bu baax. loo xam si moom Mamor xam naa ne champion la ndaanaan la mais mu ngi bëre kullu ndaanaan. xam nga ko xam nga ko. ndaanaan la man du ma bëre ku ñuy wax xam nañ ko xamuñu ko kii champion la dama ko jox cër su ma ko daanee dafa may yóbbu si toog wala gàmmu bay moo tax ma respecté loolu champion la moo tax ma jël ko. sa combat bu day gàtt xeex nan lay demee. si moom la dépendre bu nekkee comme combat bu mujj mi ni mu ko bëree damay takk lu ñu machine yi barke Serigne Touba man su ma bëggul nga daan ma doo ma daan. mais bu taxawee une biñ duñ ko am barke alxuraanu karim kon neex na ma mor kon du neex na man du ma la teggil tànk ginnaaw man man maa ko signé fii tànk ginnaaw du ma la ko teggee boo xeexee ma jur la nga wàcc ma daan man doo ma tardel la dangaa puus ba soonu demoo man puusuma ma tardel Amadou Wane kenn puusuma ma man moo da ngaa gore rek ma jox la yeneen tur may wax ay ah waaw Mamor Mbaye. waaw ma téye Mamor Mbaye la. waaw xam nga pression lañ duggee dañuy nuyoo quoi nañu nuyoo. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen di. sa jàkkaarloo musul mel nii man dama la xàmmewul tey. combat bee ko laaj bis bee ko laaj bis bee ko laaj gone dafa am luñ foog. te loolu amul dama leen di wan loolu amul loolu ñuy jaay noonu dafay dafay buuj barki Seera Fall ginnaaw bi ñu sant yàlla bi di sant suñu ñaari waajur di santaat suñ ñaari waajur di sant suma yaay fee mu tëdd yàlla suuf oyof ci kawam di ñaanal suma papa dund ba fekkee suma njariñ di nuyu waa Daara Cubu di nuyu waa Kër Massar bi may tàggatee commune Jaxaay bi Sangalkam Tivaouane Peulh Kër Njaayloo Kër Daouda Sarr Tëngéej bàyyi ma fenn daal maa ngi woo ñëpp ba ci koñam moom Fass Mbaw maa ngi woo sama mafia bi nekk Fass Mbaw am mafia Fass Mbaw bu dëgër bu dëgër kii bu bëggee suba suba suba suba suba lu ma indi loo xam ne loolu lay sol wala loolu lay takk moom. barke Serigne Touba Mbacke ko ñoom laay fanaan fanaan naa fa 15 jours daal di jóg si hôtel yi laay fanaan moom xam na fi may fanaan fekk na moom ma toog si kaw ma doom di ka xaar xoolal dama ko doon indil problème ba mu ñëwee dafa jënd glace. pool bu daaru fekk naa ko koñom mu gaare mu dem si diini ma toog di ka xaar ba mu ñëwee dafa jënd glace. barki Seydou vidéo yi ñoom sama kóol naa ko envoyé gars yi ñu dugal si dama tontu ko Modou Modou dëgg dafa neex yàlla xam nga ma la wax kii maa ngi moom fa lañ daje Lagros lañ daje Lagros ku ne xam ne secteur pôle bu daaru la mais kii su ma ñëwee entraînement Lagros di ko fa dajeeg moom wala sama boy di ko fekk di ko am nu ñu koy def dañuy jàpp ne maa la laa kii soxla ma ci moom dara xam nga laa soxla géew ba rek soxla ma ma na ñëw jàmm ma jàpp ko daan borom rës nii maa ngi nuyu képp ku fi teew di béggee ñëpp baaba nag deseletuma dara parce xale laa te defaguma fi dara mu jël bés bu mag tuddee ma ko awma lenn lu dul contentement te lépp lu war ci bés bi rek incha allah ñun dinañ ci def suñu doole dinañ ko jàppale ci bés bi ba bés bi réussir incha allah parce que ay ndaw lañ mënuñu man mëneewu ma sax wax moom xam na loolu mais li mu def nii dafa rëy ci man parce que nga gis benn jeune moom tamit jeune na gëm boppam gëm liggéeyam kon maa ngi koy ñaanal mën nga ngi yokk di bëggee képp kuy bëggee baaba di ko wax en dehors làmb ji mu tëdd incha allah ñun baabal lépp lu mu taxawal ñun ñu ngi ci biir waaw parce que lii rek lu rafet la. macha allah mais ku tuddee artiste làmb war a xaar artiste yëpp ci ci ba de. waaw incha dinaa woo samay mbokk dinaa woo ñëpp incha allah ñu dooleel bés bi parce que lii dafa rëy parce que c'est c'est une première. ñu ngi may doog a tuddee làmb xaw ma ci dara. dëgg la ñoom Aline Fall boobu ba léegi fan yii yëpp ñoo may wax li may def moom sax moo may jàppale di ma wax lu may def. xaw ma ci dara mais incha allah lépp lu war ci bés bi dinañ ko def ba mu taaroo incha allah. incha allah jaajëf ambiance dana fa am. waaw léppay am mën naa waaw mun nañ pare sax combat bi may concert foofu incha allah. bin faal dina ñëw lépp mën naa ne mën naa ne. bin lépp mën naa ne xaaral lépp kontaan ci yow. ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyu waa àdduna. gars yi salaamaaleykum ah. avant tout dañuy dugal hymne national du Mouride yi rek hymne national Mouride na ko ñëpp teewlu ah Baye Fall. hymne national Mouride ah onze bila bismillah ina wali onze bila bismillah ina wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gaay ku ne xam na ni Sokh ak Gamou Gueye ñaari mbër yu am respect lañ ba combat bi taxawee ba léegi Gamou wonewul wanewul luy coowloo kenn Sokh wonewul luy coowloo kenn ñu ngi daje fu nekk te dañuy joxante cër comprendre nga barki Serigne Saliou Mbacke ku ci xeex yaa xeexloo sa bopp mais Gamou Gueye xeexloowu la Sokh xeexloowu la ndax mu ngi nii taxaw du ma saaga du ma ko saaga te li ñu war a waxante dinañ ko waxante lii fair la rek bu leen tax ñu teg sama der wala deru Gamou géey lu ñaaw te ndub meluñu noonu ma leen siyaar yéen ñëpp yéen ñu ànd ak Gamou Gueye yëpp ma leen siyaar baax bu signature bi jeexee ñu dox ndànk ànd dem ñibbi le six ñu jëflante man ak Gamou Gueye comprendre nga maa ngi sant ñëpp di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu suñu papa yi fi toog yëpp di nuyu suma adversaire Gamou Gueye di nuyu waa Pikine gëm a jóge di nuyu sama mbokk jawlaa yi ñoom ni saafen du muyul kala Kabrousse kala ñaal kala Guinée Bissau kala këru xëy ñoom ni saafen du muyul fe di nuyu sama mbokk séeréer yi o fogole séeréer ma xëy sum naanu ma paax layaama nuun njoko njal gaama nuun ndamtaama combat fekke mi fa gaamu gay maa ngi nuyu sama mbokk bawol bawol yëpp di nuyu waa Looro di nuyu ñëpp di nuyu àdduna di nuyu waa Sénégal wasalaam salaamaaleykum gars yi maa leen di nuyu bu baax di leen siyaar bu baax di wax Sokh li mu wax noon kontaan naa li mu wax lu jaadu la quoi maa Sokh xeexloo ñu kenn maa moom ñoo war a bëre ñun ñaar ñoo war a bëre xeexloo ñu kenn ñun ñaar yar lañ xamee di ñaan yàlla na ma yàlla may ndam si si barka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Papa Yada sama nit la woon sama rakk woon di nga ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaare àjjana ak ñi mu fekk foofu ñëpp. amiin ne nii samay combat da si dina ma manqué trop mais dañ koy sant yàlla waaw di ñaanal ñëpp ñu mbëri yi génn àdduna yëpp maa leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla xaare àjjana ah fekk ñëpp. yéen ñaar daaw ngeen ñu ñëw bañ ne suba la combat bi dogal bi wàcc boobu ak léegi wàccaay gi metti na de sox. waaw moom moo tax ñii war ñoo yërëm quoi loolu rek dafa war a tax ngeen yërëm ñu mën a gàmmu gay ndax ñaari xale yu toog ñaari at yaakaar lamb bu bëriwuñ dafa métti comprendre nga. di ñaan rek yàlla na jàmm xew ba le six ci kàttanu yàlla ma daan Gamou Gueye di ñaanal Papa Yade di ko ko jaale moom Gamou Gueye di jaale Zilbalde Junior di ko jaale waa Pikine yëpp di ñaanal suma grand frère Ousmane Tine caabi da ko féete ginnaaw suñu borom delloo si waat di ko ñaanal suma rakk bébé Diène suñu borom delloo si waat ko di ko ñaanal képp ku caabi féete ginnaaw ñoom seexuma ñoom petit comprendre nga maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ci dara Seydina Muhammad waaw métti woon na trop mais dañ koy sant yàlla jaamaa pexeem yàlla dogalam waaw promoteur bi tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla tamit moom borom baax la coono bi lu ñëpp a ko bokk ak mbër yu ndaw yi ñu ay mbër yu ndaw lan sax mais lu ñëpp a ko bokk ñun mbër yi ñu ñu waroon a bëre la quinze xam nga mais jaamaa pexe yàlla dogalam ñu di ka sant yàlla bu baax waaw. yéen ñaar ñëpp seetaan nañ seen combat yu mujj waaye bu ñu leen xoolaatee tolluwaay changement am na soq foo waajalee combat bi ak préparation bi naka la demee. waaw man ku ne xam ne ni sama États-Unis laa jóge Gambie di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ñaanal suma papa Jine Mori Pierre Boy Mela Kunta Junior suma xarit ak Garga Kalso suma doomu nday nga xam ne bàyyiwuma benn yoon comprendre nga di ñaanal suma coach Ala di ñaanal ñoom Malick ñoom Julde ñëpp comprendre nga combat bi ku ne xam ne ni ñaari at lañ ko préparé Gamou Gueye su parewul daa yeb waa Tëngéej man suma parewul damaa yeb waa Pikine te benn Modou ñun suñu combat bi mu yàqoo amateur yëpp ko ñaxtu jooy ko ni mënoon nañ ñoo bàyyi ñu bëre parce que tolluwaayu Gamou Gueye ak Sokh la ñaari xale yoo loo xam duñ négocier bis kon ñun duñu rusloo amateur yi bis boobu ñëwee Gamou Gueye ku ne xam na ni Gamou Gueye du dellu ginnaaw mbër mu ñeme la day attaqué day xeex waaye Sokh ku ne xam na ni Pikine la dëkk te xale la ma am fu ma war jëm nag soxla bis bi ci lu wér man ni laa mel ne man nii laa am nii laa ma sa toll waaw nii laa mel maa ngi dëngéej Rio waaw ñun Rio lañ am mooy suñu États-Unis instant bi nii bëgg nañ dem nag mais mënaguñoo dem instant bi ñu ngi Rio waaw di waajal combat bu baax waaw ñu ngi si ko kawam daal di ñaan yàlla yàlla may ndam. léegi ñu dugg ci biir combat bi arbitre bi bu sifflé nan lay demee da nga daan ñëw. dañuy daje ndax xam naa ni waa ji day ñëw. jàmbaar la. mu laaj rek. juru làmba ji lu mu laaj rek incha allah moom la ñuy def. non lu mu laaj gaynde lu mu laaj ay naxante la. arbitre musta sifflé te doxoo sa paa ñëw. arbitre musta sifflé te soq deful ñu ñëw. nañ daje rek jëflante mu jeex ñu ñibbi. mbër làmb la làmb <laughs> la daal. lu mu laaj rek incha allah loolu laa lay wax. Eh, a lëre. mais man soq xam naa ne gàmmu gay bu arbitre sifflé day teg paa ñëw. mais yow xamal ne bu arbitre sifflé soq day teg paa ñëw jëflante. awoon dinaa amul problème. ñu ñu tuddee combat bi El Hadj Keita seen frère seen moroom liggéeyam moo ko liggéey liggéeyam moo ko waral soq looy wax ci El ak xale yi mel ni moom ñu ne ci réew waaw boole si Assane Bongo parce que ñun ñëpp ay jeunes lañ gis nga ñuy taxaw pas taxaw El Hadj Keita yi jàpp si mbëri ndaw yeex ñun ñëpp jàppale ñu ko am loo ñu jox ñu jënd ay waaw logique waaw logique la logique am ñu des ci bi yëpp kon ñun jarul ñu jubal ci gise boo ñuy jaay nga jaay ñu boo ñuy may nga may ko waaw. waaw am loo ñu may ñu jënd ay bee bu dee ku nekk da ngay may ñetti bloc sax nga may ko wala ñaar mu mbër yëpp. Modou bés bi sa bés la. Modou waaw El Hadj Keita ku ne xam na ni daanaan la. moo mujjee ñëw ci génération ñu naan ko la Neymar kon loolu du ay caaxaan fii waxal nit lu mu deful ci naafeq la bokk mais ñu li ñuy wax nii ku ne xam ne ne El Hadj Keita dafa mën a way dëgg yàlla na ko yàlla lafal cat li gàmmu gay wax dëgg la combat bi ñaari at lañ ko préparé te gisuñu dara te terewul ñu ngi sàmm suñu ngor promoteur bi ñu xam nañ ni demee ci côté am woowu moo ko sanjaxal ko ni ko lii wala lële ba mu jàppee le six dama ni ko jërëjëf ak lu mën a xew buñ ma joxul cent franc dinaa bëri te ba tey ba sànq joxuñu ma cent franc mais dinaa bëri ndax ku wéet xam sa bopp te ñun xam nañ ne ndaw la da cee nekk nii rek di jaayante ba tey amagu ci lu extraordinaire kon dañ koy ñaanal yàlla suñu boroom kàttanal ko ci daraja yonent bi mais pour l'instant ku nekk jëndal naa ñaari bolok. Ah, ku samay entraîneur problème toi maa moom ñoo far damay sant samay entraîneur Ousmane nii Papa Yada non rusante wu ñaar mel man boog mel ko maa ngi oo Papa Yada Papa Yada maa ngi koy gërëm bu baax di sant Papa Forman di si gërëm laay boxeur ak Bolo comprendre nga ak Idi ak Babou Kallay Papa Lamine maa ngi koy ñaanal yàlla ka yàlla saafara bu baax comprendre nga di sant ñëpp di oo waa Bawol ñu ñëw jàpp si combat bi di oo waa Ndiaye production bi waaw ñu jàpp si combat bi di oo waa Tëngéej ñu oo ñoom ñëpp ñëw jàpp si combat bi di oo waa Réfane bi waaw. Aline Mar Aline Mar ma di ko oo maître maître Bamar Aline ñu ñëw jàpp si combat bi ñu ñëw jàpp si Libaas maa ngi bu baax Edda ñoom ñëpp waaw. waaw beneen bi damay ñaanal Jibi Ama. ah éleveur yi. waaw Jibi Ama sama frère dama koy ñaanal wér gu yaram ak tawféex. Modou Jibi Ama ba ba ba une heure du may message ma ñaax ci combat bi te dafa tëdd yàlla na ko yàlla yëg fëgg boppam. amiin amiin ci ay beneen bi di ñaanal waa Pikine jël championnat bi di ko ñaanal président. non championnat bi nga Tëngéej koy jël de benn point ngeen roye da leen di dóor. kii maag moom suñu guerre dafa bari fi mu nekk daa bari mais garaawul di ñaanal waa Pikine yàlla may leen ñu jël championnat bi di ko ñaanal président bi di ko ñaanal borom Batora di ko ñaanal yokkute ak wér bu yaram ak tawféex comprendre nga di ñaanal suma entendeur moo maa ngi koy ñaanal baax di ñaanal waa xam sa cosaan bëri fa am combat yëpp suñu borom defal leen ndam di ñaanal président bi Malick Ngingue comprendre di ñaanal suma gain suma xarit suma frère bu combat ba léegi nelawul gëmmul centimètre moog Vito ak ñoom Moussa Ndiaye suma mafia yëpp ñoom moo tala es Ibrahima Diallo maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di woo Mortala du di woo Abdou Karim Sall di woo Amadou Sall comprendre di woo Rama Maki di woo monsieur le maire Isaka Diop di woo maire Mbaaw maa ngi koy woo ci combat bu baax di ñaan Modou yàlla na Sénégal yàlla na jàmm yàgg Sénégal ci daraja yonent bi di ñaanal Gamou taw tawféex di ko ñaanal yàlla indi ko ci bis bi la siis ma jàpp ko daan ko ci saa ah. waaw di oo tamit Souleymane Ndoye Souleymane Ndoye maa ngi koy oo di oo Mame Balla di oo Daouda Niang papa Daouda Niang di sant sama nijaay Habib seetlu naa aw ma fayam waaw maa ngi koy bu baax di sant ñëpp bàyyi ma beneen bi ah maa ngi maa ngi woo Saloum Saloum yëpp di woo waa di woo waa kër Baye Niass maa ngi leen di woo ci combat bu baax di sàkku ci yéen ñaan di woo waa axlu bayti rasul bi yëpp waaw di woo waa Casamance di woo sama mbokk séeréer yëpp waa Fimela maa ngi leen di woo waa Diofior di woo ñëpp waa Caajaay waa Njoos moom ñëpp maa leen di woo di woo Pam Malick nga ñëw jàpp ci combat bi bu baax Pam Malick ci combat bi papa Talla Paye ñëwal jàpp si combat bi ñëwaat si lamba ji jàppale mbëri Tëngéej. mbokk rendez-vous bi le juin la incha allah ci arène national Sokhu Gamou Gueye drapeau El Hadj Keita Mbagnick Kaïré Jacob Balde drapeau Assane Bongo ca Peul bu Daaru Mamor drapeau Ousou Boy mbokk yi kontaanee nañ leen di leen jaajëfal le 13 juin Gibson mooy ñëw ci arène national Bulldozer gi bu Yoff Baba Diaw gërëm na ñëpp jërë ngeen di sant journaliste yi di sant ñëpp